ñu jaay ko kooko def ko ay pièces détachées def ko ab jal fële di ko jaay benn benn mbaa boog ñu gaare ko rek mu ne këlug noonu rek kenn du ko jariñooti bu toon daal gaaraas yooyu ak ñoo ciy liggéey te mën a defar moom noonu rek la sunu oto bi di mujj walakin nii waaye man nag in asiftu ndem métit lu naa mooy asifa jàq ne jooju ngay dégg ala shay'in ci dara fa innama asiftu naka danaa métit lu li xaalatil maraibi ñeel mbirum gaaraas ya alxadirati aji salte wala xadimati tartibi tey aji ñàkk ak rañsale muy ak organisé wala xadd taman naytu mébatoon naa min samimi qalbi ci sama xóot-xóotu xol an takkoona ci bu nekkee almara ibu gaaraas yi fii bilaadinaa ci sunu réew yi nawifatan di aji set wa aniqatan tey aji yéemu ci rafetaay wa mujahasatan tey lu ñu équipé mooy tey lu ñu waajal bi ahdasil alaati ci gën jaay yeesi machines yi alxasriyat yi moderne mooy dëppook jamono mu ne waaye nag li mu metti nga xam daal bu amee lu muy metti loola ca la mooy rek li ëpp ci sunu garage yi moom dañuy salte te ñàkk ak organisé doon naa ñu bët loolu daal ci sama xol garage yi ci biir sunu réew yi sunu dëkk yi ñu fexe ba garage yi ñuy set ku leen gis sa xol sedd ba noppi tam nag ñu équipé leen waa def fa ay jumtukaay yoo xam ne day dëppoonteeg jamono ay machine dëppoonteeg jamono nga xam ne daal day agsi rek fi saasa yi saasa ñu defar li nga doon defarlu nga daal di dem mu jàll si ci alqitaaru terrain muy saxaar mu njëkkee alqaatiratu locomotive locomotive mooy bopp saxaar yetta àllafu dana composé woo alqitaaru terrain min qaatiratin ci ab locomotive tasxabu xoobu dana ko diri mooy moo koy ñoddi wa min shaahinaatin ak ci ay wagon li naqali rukkaa bi ngir transporter clients yi awil badaa'i wala marchandise yi saxaar moom nee na faaw day am bopp boo xam ne mooy ñoddi ak wagon ya nga xam ne ñoom lay ñoddi wagon yi nag am na ci yoo xam ne ay client ñoo ciy dugg am na ci wagon yoo xam ne dañ cay suuf xeeti marchandise yi tata àllafu dana composé woo alxaatiratu locomotive ba min xalsaanin ci ab réservoir kabirin bi aj rëy lil maa iñal ndox tattasilu dana taq mooy dana sës bi ci moom muharrikaatun ay moteur tuddiiru yooyu danañu tourné alxajalaati pënu ya bi waasitati doxti ci diggaleg pompe ga albuxaari yi kay ko jóg vapeur muy buxaar bi firi saxar fil qaatirati nekk na ci locomotive ba xurfatun ab cabinet ab cabinet maanaam ab néeg rek xaasatun bi aji jagoo li saayaxi ñeel chauffeur ba wa muhaawinihi ak at suyem dafa wax ne bopp saxaar gi moom day am defukaayu ndox boo xam ne dañ cay sol ndox mu am nag ay moteur yi moteur yoo xam ne da cay taq yoo xam ne ñooy tourné pneu yi ci kaw bés gi nga xam ni moom la woppaar bi di bés bopp saxaar gi day am cabinet mooy day am néeg boo xam ne ki dawal saxaar gi ak ka ko cay jàppale ñoo cay nekk fii naaxiyati nekk na ci ab côté mina xurfati ca sàmbar boobee baabun buntu saxiirun bi aju tuuti tulxaa boobu def na sànni fii ci moom xitaxul fahmi alxajari yi morso yi charbon ya li tashtahila ngir ñu tàkk wa duxul yi te ñu wañaxal alma ndox ma fil maraaji li ca kawdiriya alfahmu alxajari yu ngi wax wiil wala li ñu wax kóok alfahmu alxajari yu wiil dafa wax ne cabine boobu ñu jagleel dawal ko saxaar geeg at suyem am na bunt bu ndaw boo xam ci la ñuy jaarale morso yi kooku yi wala nga ne morso yi charbon yi ci lañ koy jaarale bu ko defee nag bu ñu tàkkee ñooy wañaxal ndox ya nekk ca marmite ya ndox ya nekk ca cin ya lay nuru ay cin xalaa jiddaari xurfati saixi nekk na ci booru tobinet dawalkatu saxaar gi al amaamiyati bay ko jóg kanam saaxaatun ay volant man ngaa boole saaxaatun xaddaadatun muy rekk ay tableau boor wala nga bu dee oto bu dee leneen li ñuy wax tableau boor nga xam ne ci ngay xoole di gis vitesse yi tàngaayu ndox mi su ëppee nga xam ko ak mboole mi demee noonu daal ñu oto yi amee volant rek xam na ngay fi nga toog yow suufar ngay jàkkaarloog yooyu yëpp ni muy doxee boo boolee saaxaatun xaddaa dëtun ñooy wane loolu saaxatun addaadatun bi ñu ko waxee daañu cee jublu compteur li nga xam ne mooy wane moo tax mu teg ci sax tushiru yooyu danañu junj ila quwati daxtil buxaari jëm ci dooley najug wapoor bi wa ila xaraaratil maay ak jëm ci tàngaayu ndox ma wa ila ahdaafin ak jëm ci ay jublu mutanawihat yu aji wóote ay façon dafa wax ne day am ay compteur yoo xam ne ñooy wane vapeur bi fu dooleem toll ak ndox mi ci boppam fu tàngaayam toll ak yeneen jublu yu bare bari yoo xam ne rek dañ koy jubloo xam te ñu ngi koy xamee ci xool tableau boor bi wala nga ne ci xool volant bi wala nga ne ci xool compteur yi nekk ci sa kanam lil xaatirati ñeel na locomotive ba mbedd xanatun génn génnukaayu saxar daxmatun bi ajrëy yaxruju ba dana génne min xaa ca moom addu xaanu saxar sa al aswadu say aji ñuul al kasiifu say aji tal mooy fatt bopp saxaar gi day am génnukaayu saxaar boo xam bu rëy lay doon saxaar su ñuul su tal si ca lay génne xindama yaxumu saa yu yittewoo alxitaaru terrain ba bi say di ci dox yaftaxu dana ubbi as saaiqu dawalkat bi safaaratan ab sireen buxaariyatan bi ko jóg wapeur yusmaaw boobu def na dégg la xàññeel ko daw yun am riir shérif mi aji tar sufóor bi am na sirène boo xam ne su bëggee saxaar gi riir maanaam saxaar gi korne moom lay ubbi su ko defee bu ko bësee rek mu daal di riir riir mu xumba xumbu mel ne mooy ak korneem daal maanaam mel daal day nuru ñu wax klaxon ci moom ashahinaatum ñëw nag ci wagon yi lil xitaar yi ñeel na saxaar ga xiddatu shaahinaatin lu bari ci ay wagon xismul ab xaaj min xaa ci ñoom bun ni yu law ni lu maron aw melo la borom melawu maron la mu xassas mu di wuñ mu xassasun xaaj bu di buñ jagleel lir rukkaa bi ñeel client yi wa qismun akub xaaj axaru baneen aswadul law ni du aji ñuul couleur muqassasun bu di buñ jagleen li shahnil bidaaxati ñeel sarse marchandise mu ne saxaar day am ay wagon yu bari am na ci ak wàllu goo xam ne ci xeeti wagon yi couleuram day marron moom la ñuy jagleel clients yi ci la ñuy dugg am beneen xaaj boo xam ne moom couleur ba day ñuul moom nag moom la ñuy féetale suuf marchandise yi fii daaxili shaahinaati rukkaa bi nekk na ci biir wago yi clients yi maqaahidu ay banc xacha bi yet ni ko jóg bois te mooy dénk li rukkaa bi darajati ñeel clients yi degara ba ak taalisati bay aji ñetteel wa taaniyati ak bay aji ñaareel neexee ne li rukkaa bi darajati ñeel clients yi classe ba ak taal ak taalisati bay aji ñetteel ak taalisati bay aji ñetteel wa taaniyati ak ba ñaareel wa maqaaxidu ak ay baŋ wa fi rasmi aju nooy min jildin yu bàyyi ko ci der li rukkaa bi darajati ñeel clients yi classe ba al ula ba jëkk mu ne nag fii clients yi dugg moom dañ ko def ñetti classe yu wuute classe u ñaareel ak bu ñetteel moom taxuleen a neex lool ndax ay banc ya fa nekk bangi dénk la classe bu njëkk bi nag moom moo amee ay banc yu nooye nooy ak ay banc yu foor di cëpp nag lu mel noonu moo daan gën a jafe ndax ñi am barke mën a fay lool ñoo ciy dugg al maxattatu gaar ba maanaam gaar bi nga xam ne ci la saxaar gi taxaw fii kulli madinatin nekk na ci bépp wiil maanaam bépp dëkk bu mag aw xariyat ni wala village hamatin bi aji am importance maanaam village bu am solo maxattatun ab gaar lil xitaari ñeel saxaar gi alxadiidi yi gi koju wéngu ñuul mooy saxaar bi daw ci raay bi rek yuqsamu def na séddale albinaaw bâtiment ba ilaa xismayni jëm ci ñaari xaaj ahaduhuma benn ci ñoom ñaar lil bidaaxati ñeel marchandise ma wala axaru ba ca des lil muwazzafina ñeel fonctionnaire yi mooy ña fay liggéey nee na dëkk bu mag bu ne moom dana di am gaar bu saxaar gi war a taxaw dëkk bu ndaw boo xam ne bu am solo la itam noonu dana di am gaar gaar bi nañ koy def benn bâtiment boo xam ne ñaari wàll lay doon genn wàll gi ci la ñuy def marchandise yi nga xam ne moom lañ bëgg saxaar gi yóbbu ko benn xaaj ba ca des ñi nga xam ne ñooy liggéey foofa ca gaar ba ñoo fay féete lil maxattati ñeel na gaar ba mustawdaxaatun ay dépôt lil fahmi alxajari yi ñeel li ñu wax charbon wala kook waxazaanun ak ab réservoir kabirun bi aji rëy lil ma ñeel ndox gaar bi dana dem ay dépôt yoo xam dañ cay denc alfaxmu alxajari yu charbon bi saxaar yu jëfandikoo di ko lakk ak citerne bu rëy bu ñu def ndox ndax da ci bari saxaar day yittewoo ndox mu ñëw ci almuwazzafuna fonctionnaire yi ñoo fay liggéey fil mahattati nekk na ci gaar ba muwazzafuna ay fonctionnaire li bay hit tadakiri ngir jaay tike yi wali shahnil badaahi ak ngir sarse marchandise yi amma fi shaahinati ndaal ca biir wagowa ci biir wagowa fa najdu dana nu fekk mufattishina ay inspecteur li tadxiix yi ngir xoolaat bu baax fit tazakir yi ci tike yi ñooy liggéey ci gaar ba la ne am na ci ñoo xam ne ñooy jaay tike yi boo bëggee jënd tike am na ci it ñuy sëf marchandise yi boo nekkee ci biir wagon itam am na ay inspecteurs yoo xam ne leen di yebal ñuy xool nag ba xam ku duggute daggul bee ak ku dagg bee te bee ba baaxul mbaa fa mu war a wàcc jàll na moom wàccut yu demee noonu am na ñu koy xool man nga ne li tadd xiixi ngir contrôler xool bu baax rek fit da zakiri ci biyee ashor waxe bu danaa sopp asafara tukki fil qitaari ci train ndax moom yasiru day dox ala mahlin ànd ak ndànk ata makkanu dana jekku min mushahadatil manaziri ci jàkkaarloog xoolukaay ya ak tabiiyati yi ko jóg nature yu xaafisu dana sàmmoonte moom saxaar ala awqaati yi ci ay waxtoom mooy ci ay randiwoom mu ne daal tukki ci saxaar moom lu ma neex la ndax saxaar ndànk lay dox su ko defee fi ngay romb ci àll beeg jaww ji da nga ko mën a xool bu baax a baax te itam ne li ëpp ci saxaar yi moom duñu tardé rendiwu dañuy sàmmoonteeg seeni waxtu ak ro danaa sib asafara tukki fil xitaari ca terrain ba indama akoonu ci saa yu ma nekkee nag mustaajilan di aji yàkkamti xanaa daal su ma yàkkamtee moom du ma bëgg a dugg saxaar ndax saxaar moom dafa yeex su ma yàkkamtee rek bëgg a dugg ci lu gën a gaaw saxaar mel ne oto wala avion mu jàll si ci at taw siyaaw mawduhun ab tem la tarifun buy aji yéemu wa latifun tey aji sew fii aanin ci jamono waahidin judi jenn yabaxasu dana yen mooy dana def mbaa dana jeqi fii nafsi ci sama xel dikrayaatin ay fàttaliku wasuwaran ak ay foto wala ay melo jamilatan yu di aji rafet mahbubatan yu di ñu sopp ila qalbi jëm ci sama xol te suwara wasaili naqli moo di meloy moyen ni transport al mutahaddidati ya di aji limu tem bi dafa yéemu te xereñ te sew moo ko dee seet dëgg-dëgg ci sama xel moom damay daldi am ay fàttaliku yu rafet rafet yu neex ci sama xol te loolu mooy su ma dee seetlu moyen yi nga xam ne yàlla may na ko doomi aadama mu mën cee déplacer jóge fii dem feneen su ma leen di xalaat kenn ku ci ne na mu demee rek damay taxa xalaat xalaat yu bare bari yu neex ci sama xol awalan nag xasrul mawduuxi bayna al qitaari wal baaxirati te day jëkk a def xasanaatul qitaar ak sayiaatu tem bi da koy far yamale ci seet ba xam terrain ak bateau ñoom ñaar kan moo ci gën a neex ci booy dem day njëkke nag saxaar wax yamu ca xam ci ay baax baaxam ak yamu ca nemm ko ci yoo xam ne taamu wuñu ko ca wa nazaral ngir xool ngir seet li katrati wasaaili naqli ñeel barik moyen yi transport wa taxaddudiha ak seenug limu faqad xasara takk na wala gaw na danaa ñeelnu almawduhu tem bi xanaasiral mufaadalati élément yi donalante bay nas na yi diggante ñaar diggante yaar ci ñoom huma ñoom ñaar ak xitaaru mooy saxaar wal baaxiratu ak bato bu ñu seetee ne mooy ni transport yi dañoo bari kon thème bi moom dañuy waxal rekk ñaar yi muy saxaar ak bato ñu ñu gënantee mooy kenn ku ci nekk boo ko dee seet la nga cay taamu ak la nga ca taamuwut fa indama atadakkaru saa yoo xam ne danaa fàttaliku alqitaar saxaar atadakkaru danaa fàttaliku muxaafadatahu ak sàmmonteem ala mawaaxiidi safarihi ci randi wuy tukkee muy ci waxtuy tukkeem atadakkaruhu danaa ko fàttaliku wax wate moom yasiiru dana dox xalal xattayni ci ñaari ligne ya maanaam ci ñaari yoon ya alxadidiyayni ya di ko ji lañ gu ñuul bit mi naanin ànd akuk dal laa yaxsha du ragal xaraxan genn lab wala xawiyan du caageenu ak xawiku daanu atadakkaruhu danaa ko fàttaliku wax wate moom yejjitaasu dana jéggi as suhoola joor ya suufi joor ya ka xas fir réexi mel ne riddik ngelaw maanaam mel ne ngelaw lu am doole lu gaaw a gaaw fa yastanisu tey wettaliku al musaafiru aji tukki ja fii ci moom saxaar bi manadiril busuti ci xoolukaayu tappiya alxadra yi aji wert tatama waju mbir moom dana jaxasonte dana ràbbaloo fiihaa ca ñoom almasrohaatu yañuy bay a sundusi yetu yay ko jug sundus maanaam ya rafet ba mel ne malaani ajjana li mu njëkk wax mooy saxaar de moom li ma ci gën a seetlu te mu neex ma mooy li ci ëpp du sarde day sàmmonteeg rendiwoom mooy gaar bu ne ak taxawaay bu ne waxtu woon fa war a agsi dafay agsi waxtu woon fa war a déparé la fay déparé mu ne it su ma dee seet mbirum saxaar ba fàttaliku na muy doxe ci yaari yoonam yooyu nga xam ne day ñaari liiñ becc benn bu ci ne ñu liggéey ko ci weñ gu ñuul buy dox day ànd koog dal du lab du xawiku daanu ba tey danaa di fàttaliku ak a seetlu bu dee aw ci suufi joor yi xanaa buraay ba awee ci foo xam ne joor la moom day gaaw mel ni ngelaw ndegam nag foofa suufi joor la day am ñax mu rafet rafet moom lu nuroo leeg ay topp yu rafet rafet ya fay sax nag rafet lool mel ne malaani ajjana kuy tukki ci saxaar boo tolloo foofa da nga mën a seetaan béréb yu rafet yooyu sa xol di dal nga cay wettaliku atadakkaruhu danaa ko fàttaliku waxwa te moom yata sallaqu dana ñàpp aljibaala doj ya xalaa mahlin ànd akuk ndànk aw yan xadiru wala muy bartandiku ilal aw diyati jëm ci xurye bi xadarin ànd ak wattandiku maxaafata tadahuri ngir ragala xalangu daanu fa tabdoo te dana feeñ min nawaafidihi ca faneetaram ya lil musaafiri ñel aji tukki ja mashaahidu tabixati ya muy jàkkaarloo ci nature bi mashaahid mooy spectacle maanaam la ngay xool ak setantal alfatinati nature bi aji fitnaale alfatinati naat la ci ab tabia kullu haadihi almazaya mboole mi lay ngëneel tarafaamu danañu yëkkati min sha'anil xitaari ci mbirum saxaar wa tajxaluhu tañ koy def max booban muy lu ñu sopp indal musaafirina fa way tukki ña ba tey ne danaa di seetlu saxaar gi bu dee yëg ci ay montagne muy ay doj day def ndànk ba tey bu dee barastiku di wàcc jëm ci ay xur day mel ne day xam boppam di wattandiku ndax bañ a xalangu daanu te mu ne boo dee tukki ci saxaar boo taxawee ci fenêtre yi saxaar gi da nga mën a jàkkaarloog ni yàlla bindee àll beeg jaww ji ak na mu rafete yépp daal tax na saxaar am solo tayit ñi tukki bëgg ko laakin nii waaye man ak raxu dana sib fii ci moom saxaar isxaajahoo xatalam nga raaxatal musaafiriina nooflaayu way tukki ña bi duxaanihi ca saxaram sa wa maqaa'idihi ak ay bangam alxashabiyati ko jug dénk wa diiqi sadrihi ak xatuk dënam ba ba mu waxee la mu taamu ci saxaar dafa daaneele wax nag la ko ca naqari mu ne man nag li ma ci naqari mooy tukki ci saxaar léeg-léeg mu xaw a naqari ndax saxaar si nga xam ne moom lay saxaar bu dee saxaaru njëkk ya ak ba ngi dénk yow yi ak mel ne saxaar gi ci boppam dafa di ko xat ab dënn maanaam mel ni daal du yaatal ña nga xam ne ñoo ciy tukki nañ war a yaatoo loolu daal nee na moom la naqarlu ci mbirum saxaar amal baaxiratun daal bato fa indama adkuruha saa yu ma koy fàttaliku adkuru dara fàttaliku xoddoo ak tabaxi daluk jikko ja waru ju xaanal fikri ak lënguk xalaat ga adkuru dara fàttaliku ne annaha naka moom madinatun kem ab dëkk la daxmatun bi aji rëy ah imatun bi aji feey xalaa satxil maa yi ci kaw ndox ma adkuruha danaa ko fàttaliku waxad fataxat te mbir mu ubbi na sadraha dënam ba listiqbaalil musaafirina ngir teeru way tukki ña muqaddimatan mbir muy aji présenté ilayhim jëm ci ñoom jamiha wasaili raxati mboolem moyeni noflaay min xurafin ci ay sàmbara mafrochati ni duñ lal taayale bi ahdas ci sururi ci gën jaayeesi ay lal wa wasaili sinati ak jumtukaay taar wa bahwin akub salon xadimin buy aj rëy yajj tamit bu dana daje fii ci moom ar rukkaabu client ya yataxaddasoona danañu waxtaan wa yatasallawna te ñuy miis ci seeni xol mooy te ñuy bànneexoo ci seeni xol dal mutaalaxaati ci xeeti liir ya liir mooy yër ay téere wala ay journal mbaa yeneen wal alxaabi ak xeeti foya al mufrihat yi aji bégloo dafa jàll si ci bato mu ne bato nag moom seetlu naa ne ni ko yàlla bindee dadi ko dal bu doon jëmm ji xalaat nga ne ku am xalaat bu rafet la boo ko dee xool day mel ne rek ab dëkkub lëm boo duggee ci biir daal day mel ne ci ab dëkk nga nekk nekkoo ci biir ab warukaay dong day mel ne yaa ngi ci ab dëkkub lëm bu rëy rëy buy feey ci kaw ndox mi ba tey nee na maa ngi seetlu ni nga xam ne moom la yaatoo ab dënn wuuteeg saxaar day mel ne moom ab dënn dafa yaatu mu mën a teeru mboolem tukkikat yi te di leen jox lépp li tax ñu am nooflaay bokk na ca ay sàmbar ay néeg yu yaatoo yaatu yu ñu lal lal yi gën a yees gën a moderne ak mboolem jumtukaay yi nga xam ne jumtukaay yi rafetal ak taaral la ak benn salon bu rëy rëy boo xam ne clients yi mën nañ caa daje toog di waxtaan ak a bànneexal seen xol ci liir téere yeeg surnaal yi ak yenn xeeti fo yi nga xam ne bëgloo nga xam ne salon bu yaatu bi day far am sax lu mel ne cinéma ak lu mel ne théâtre rawat ak télévision ak daal ya ñu yittewoo ci lu mel noonu innal baaxirata naka bato ba tatahaada dana daagu fil baxri ca géej ga bi riqatin ànd akuk sew wa dalaalin akuk njeegat mel ne seme watanaamu te muy xéewu bi xorriyati sayri ci liberté dox wa jamaali zurqatil baxri ak taarub wertuk ndoxum géej gi xayra an na ni dara naka man laa aloomuhaa duma ko yedd xalaa cheyin ci dara siwaa an na manaviraha ndare naka ay xoolukaayam ya ngay gis daal boo nekkee ci biir bato bi xoolukaay yooyu waaxidatun benn lañu rekk wa annaha ak naka moom kathiratu taxarrudi aji bari lu muy soflu la lil xatari ñeel dansé mu ne bateau buy dox ci géej gi day mel ne koy daagu di wane boppam mel ne ku yëg a yëg boppam buy dox itam day ànd ak liberté amul lu koy xatal boole ci nag ndoxum géej mi nga xam ne ci lay dox day wert te rafet li ma koy yeddi daal bu fekkoon ne kuñ mën a yedd la mooy boo nekkee ci biir fi say bët di dal du wuute maanaam ndoxum géej gu wert gi rek ngay gis bokkut ak borom tukki ci àll bi ci oto mbaa saxaar di gis àll bi muy birab yi wuute wuute boo nekkee ci ndox mi moom ndox rek ngay gis mel ne benn xoolukaay rek la amut luy changé di soppiku mu dolli ca nee na lu bare bari moom bato mën na am boo ci dee tukki xeet